yi Sénégal salaamaaleykum tey ci sama vision pour njàng mi lay wax li suñu développement soxla nag dafa dépasé fi njàng mi tollu tey ci Sénégal moo tax ci suñu programme ànd liggéey suñu Sénégal fas naa yeneen refonder école bi muy tabaxaat ci kaw ba ci suuf suñu système éducatif sama vision dafay placer élève bi ci diggu système bi teg enseignant bi koy jàngal ci condition yi gën a baax di jàngale xam-xam ak mën-mën ba élèves yi ku ci pare rek mën a liggéey ci luy sukkali développement wu Sénégal su ma faloo li may njëkk a def mooy organiser les assises nationales de l'éducation et de la formation pour refonder suñu modèle taxawal ab conseil national de l'éducation et de la formation defaraat programme scolaire yi dugal anglais depuis la classe de sixième primaire école doon lu obligatoire dalee ci ñetti at ba fukki at ak juróom benn te kenn du fay dara benn parent buggul yóbbu doomam école pour muy échouer moo tax école bi may proposé dina identifier atu bépp élève encadré ko ci li mu gën a xarañ ci li mu gën a bëgg ci wetu ensegnement général bi dina dooleel bu baax à partir de la classe de troisième ensegnement technique ak enseignement professionnel en classe de première xale yi dinañu def 4 mois de stage pratique ci entreprise yi dinañ ko généraliser ñuy soli blouse ak cantine ci école yépp joxe ay fourniture teg ay bus de transport scolaire ngir jàppale parents yi bu ñu génnee ci assises yooyu dinañu leeral anam yi ñuy recruter sëriñu daara yi ngir dugal leen ci éducation nationale ak programme bu officiel chaque année bëgg naa tabax 250 médarsa muy école daara recruter 750 sëriñu daara dina xoolaat également convention entre état ak privé catholique yokk bu baax subvention annuelle bi jàppale leen ci formation enseignement yi mbokk yi kenn mënul wax njàng te waxoo enseignant maa ngi leen di delloo njukkal dina revaloriser bu baax payooru personnel de l'éducation et de la formation ak administrateur scolaire yi dinaa yokk tamit seeni indemnité wàññi l'impôt dina taxaw ci seeni formation fas naa yéene taxawal programme spécial de cinquante mille logements pour les enseignants mérité nañu lu ëpp loolu jëm ci njàng mu kawe mi dinañ ko réorganiser en sept pôles universitaire ak programme yu méngoo ak axe stratégique de développement ànd ci ak entreprise yi dinañu tabax sept universités yu bees 500 écoles recruter 5000 enseignants rawatina ci njàngum science ak technique le temps de la relève est définitivement arrivé wasalaam